alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala rasulillah nabina muhammad wa alihi wa sahbi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi ddin assalaamu aleykum wa rahmatullah très chers amis auditeurs par la grâce de Dieu subhanahu wa ta'ala puis avec l'aide de notre frère Mohammed Diakhaté. Nous sommes ensemble à l'occasion de cette fête du travail pour nous rappeler de la place que l'islam accorde à cet instrument qu'est le travail mbokk yi ñu dellu sant yàlla subhaanahu wa mi nu wërsëgal nu mën a daje daje ci bis bu tedd bi tolloog ñépp taxaw ngir sargal liggéey ak liggéeykat ñu ne bon nañu taxaw ñu nit seet lan mooy makkaanu liggéey ban place la lislaam jox liggéey ci li muy tëral très chers amis auditeurs dans un sens général Le travail est le moyen privilégié par Dieu subhanahu wa ta'ala pour donner à toutes les créatures leur part de subsistance dans ce bas monde, ce monde qui fonctionne sur le mode de cause à conséquence, de cause à effet. mbokk yi li ñu njëkk seetlu mooy liggéey bu ñu ko waxee rekk lislaam dafa lay wax ni moom mooy jumtukaay bi nga xam ni ci la yàlla subhaanahu wa def sabab ngir képp kenn ci mbindaafoon yi li mu la sédd ci àdduna bi mu teg ci sa ndax àdduna yàlla da ka teg ci lii di jur lii le messager d'Allah la meilleure des créatures le prophète Mohammed paix et salut sur lui explique cette causalité. Lorsqu'il nous dit, je cite, le croyant fort est meilleur que le croyant faible. Mais en chacun d'eux, il y a du bon. Donc engage-toi dans ce qui t'est utile, puis demande à Dieu subhanahu wa ta'ala de te venir en aide. Mais ne sois jamais fainéant, ne baisse jamais les Et si jamais tu essuies un échec, ne dis pas si j'avais fait ceci ou cela, mais dis plutôt, c'est Dieu qui a décidé et c'est lui qui fait ce qu'il veut. Car les hypothèses, les si, les regrets ouvrent la porte à Satan le maudit. lii ma la wax ci ne àdduna day dox ci lii mooy jur lii yonent bi sallallahu alayhi wa mu nga nu koy jàngal ba mu ne almuminul qawi xayrun min mumini daif mu ne jullit bi dëgër am kàttan moo gën jullit bi nga xam ne dafa lompañ mu ne nag waaye wa fi kullin xayr ñoom ñëpp nag mbaax rek la bon yow ahris ala ma yanfauk wastain billah bon yow nanga jàpp ci sabab yi ngir jot li nga xam ni mooy sa njariñ boo defee loolu ba pare nag wàkkirlul ci yàlla wala taajis bul lompañ wa in asaabaka shay fala taqul law faaltu kaana kaza wa kaza mu ne boo xamee ni bii def nga li li la war lépp ba pare mbir yi sottiwul mul ni bul ni moo ne bu fekkoon defoon naa nangam de mbir mi nii ak nii lay tëdde walakin qul qadarullah wa ma shaa faal waxal ni lii mooy dogalab yàlla bi te yàlla mooy dogal ni ko soob ndax inna law taftaxu amala sheytaan lii day mënoon nay nekk mu ni loolu mooy ubbil bunt iblis ainsi tant qu'il a la force d'agir Le musulman travaille pour s'assurer une vie matérielle confortable. Si Dieu comme la parure de la vie dans ce bon monde, comme il l'est de la grotte, c'est parce que bien nous permet de créer de la valeur et les pour pouvoir assurer une adoration correcte au Seigneur le Tout-Puissant mbokk mi euh, jullit li fekk mu ngi koy man li fekk mu ngi am kàttan day liggéey ndax ci liggéey ci lay mën a amee dund gu teey dund boo xam ne ci wàllu zahir dund buy matale la boo gisee yàlla subhaanahu wa taala di melal alal ji naan ziinatul xayaatu dunya mu ne xaalis alal taaru dundu àdduna la mooy ni alal jooja koom jooja mooy tax nu mën a am dundin boo xam ne bii dund buy mucc ayib la ci zahir te dund gu mucc ayib googu nekk ci yenn condition yu matale yi ku ci yàlla defal mbaax mooy matalit sa jaamu yàlla nga kay def ci dal à l'opposé l'oisiveté mène à la pauvreté et à ce propos Seydina Omar radiallahu taala anhu raconte que des hommes qui étaient pensionnaires à Soufa vinrent un jour se plaindre des besoins qu'ils ne pouvaient pas satisfaire auprès du messager de Dieu. paix et solution. Le prophète alayhi leur dit, il s'en est fallu de peu que la pauvreté devienne mécréance et que la jalousie précède le destin. Donc, priez Dieu et dites, mon Dieu, toi le Seigneur des sept cieux et du trône sublime, aide-nous à payer nos dettes et enrichis-nous et sors-nous de la pauvreté. mbokk mi Euh, ci safaan bi dangay fekk yàccaaral ak ñàkk jéem def dara lu gën a bare dana jural nit ñàkk ak ndóol wax na moom Seydina Omar radiallahu taala anhu mu bis jaa rijaal asxaabu suffa ila nabi sallallahu alayhi wa ali fa shakaw ilayhi alxaaja mu ne ahlu suffa euh, bis dafa ci am ñu ñëw ci yonent bi alayhi salaam di tawat di jàmbat ay soxla yoo xam ne ñu am te mënuñ ci dara ci faj fa qaala nabi sallallahu alayhi wa ali kaada alfaqru an yakuna kufran wa kaada alxasadu an yasbiqa alqadar mu ne ah li ma lay wax daal mooy tuuti koon ñàkk wëlbatiku nekk kéeféer tuuti kon itam kiñaan jiitu dogalu yàlla ci jaamu yàlla yi xuoloo na ngeen yaan yàlla ngeen ni allahuma rabba samawati sab wa rabbil arshi al azim iqdi anna dayna wa aghnina min al faqr yow sunu borom yow mi bind asamaan yi juróom ñaar yow mi borom arash bu tedd bi fayal nu sunuy nga may nu koom ba génnee nu cig ñàkk enfin amis auditeurs je tiens à rappeler ici que c'est le travail qui nous protège contre l'humiliation de tendre la main et d'aller mendier auprès des autres c'est le travail qui protège notre dignité le messager dit que l'un de vous aille ramasser du bois mort pour le vendre et subvenir à ses besoins vaut mieux que de demander aux gens, soit que ces derniers lui donnent ou que ces derniers refusent de lui donner. mbokk yi lii ma la wax day tax ñu war a fàttaliku képp kenn ci ñun ni liggéey rekk mooy mën a musal nit ci gàcceeg ñaan gàcceeg kaajeey gàcceeg yalwaan ak tàllal sa loxo ci say nawle ngir ñu fajal la say aaj liggéey mooy sàmm sunu ngor siggal doomu aadama ji ci biiri nawle moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa moom mi yàlla yónni mu ni lan yaxtatiba axadukum xudmatan ala dahri xayrun min an yasala axadan fa yuctiyahu aw yamnaaw mu ne gis nga nit dem fori mboobaat fori ay mat taxan sayu matam yanu ko jaay ko ngir am li mu dunde moo gën fuuf mu dem di ñaan ku mu mënti doon moo xam kooka may naka la mu koy ñaan moo xam kooka gàntal nag nu ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu wërsëgal nu nu bokk ci ñi muy may dégg ak topp loola yomb na borom bi yàlla nu ko Mustafa Rahman ji'ta bil Qur'an hadiyan lillah Très chers amis auditeurs qui nous accompagnait en ce jour béni où le monde repense au travail. La réalité, c'est que si Dieu subhanahu wa ta'ala nous a mis sur cette terre, c'est simplement pour que nous travaillions, pour que nous la développions. C'est ce que le prophète Salih paix et salut sur lui, disait à son peuple, c'est Dieu qui vous a créé d'argile et vous a installé sur terre pour que vous peupliez la terre et la développiez. Surat Hud, verset 61. La même vérité sera répétée par Moïse, paix et salut sur lui, qui nous apprend quand il dit au verset 129 sourate Araf, votre Seigneur vous a donné la lieutenance sur terre pour voir comment vous allez travailler, comment vous allez vous investir mbokk yi yéen ñu tedd ñu ànd ak nun ci bis bu tedd bi benn dëgg gi képp kenn ku nekk war a bàyyi xel mooy nga fàttaliku ni su yàlla subhaanahu wa taala wàccee doomu aadama yi mu wàccee nu nun ak jinne ci kaw suuf mooy ngir nu liggéey suuf ngir nu fexe ba suuf jëm kanam loolu daa fekk uh, alquran di ko jàngale ci làmmiñu yont yàlla saalix alayhi salaam wax na nitam ña mu ne huwa anshaakum min al mu ne yàlla moom moo leen bind sos leen fent leen jële leen ci suuf wastaamarakum fiha mu teg leen ci kaw suuf nag ngir ngeen bay suuf si ngir ngeen liggéey suuf si ngir suuf soosu ngeen yaxanal ko ba mu gën a jëm ka suratu Hud boo demee da fekk genn dëgg googu rek yonent di ko wax seeni nit yonent yàlla Muusa ca suratul Araf wax na bani Israila mu ne asa rabbukum an yuhlika aduwakum mu teg ci ne wa yastaxlifakum fil ard fa yandura kayfa taamaluun yàlla mën naa mu dimbali leen waaye na ngeen fàttaliku ne li tax mu teg leen ci kaw suuf bu leen joxee ndam teg leen ci kaw suuf dooleen leen jox leen nguur dafa bëgg xool kayfa taamaluun naka ngeen di liggéeye naka ngeen di jëfe ngir suuf soo sa jëm kanam ngir réew moomu la dénk jëm kanam suratul araaf la téeméer ak ñaar ak juróom-ñeent et amis auditeurs c'est de cette grande très grande responsabilité de développer la terre de l'améliorer de la fructifier et d'en faire un cadre de vie épanouissant grâce au travail que nous devrons répondre demain devant Dieu subhanahu wa au jour du jugement dernier. En d'autres termes, je peux dire qu'adorer Dieu subhanahu wa ta'ala dans la vision de l'islam, c'est travailler honnêtement dans ce monde au même titre qu'on accomplit les actes cultuels tels que la prière, le jeûne et les pilier de l'islam mbokk yi boo xoolee doomu adama nga di lan mooy responsabilité da ngay fekk mooy yaxanal suuf te responsabilité boobu yàlla dénk nit xilaafa googu mu ko jox ci mu liggéey suuf fexe ba mbir yi koom am fexe ba dund gi nekk dund guy may nit mu mën a jaamu yàlla ca na jaamu ga ware loola la nit di taxaw ëllëg ci kanam borom bi subhaanahu wa taala wax ca lan la ci def képp kenn ci nun nga ni bon bu dee a jaamu yàlla subhaanahu wa ñaari tànk lay doxe liggéey liggéey bu maandu bu jub bu dagan ci dundu àdduna bi ni nga xamee ni noonu la nit ki di jaamoo yàlla subhaanahu wa taala ci ponk yi ti julli woor ak yeneen yi nga xam ni moom la teg ci ndoddu doomu aadama ji ngir njariñam dund fii ak fële ami auditeur Dans ce sens, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, aurait dit, travaille comme un individu convaincu qu'il ne mourra jamais, mais prends autant de précautions que quelqu'un qui appréhende de mourir le lendemain. Et certains savants musulmans ont paraphrasé ce hadith douteux en ces termes. Travaille pour ta vie dans ce monde comme si tu devais vivre éternellement. Et travaille en même temps pour ton salut dans l'au-delà comme si tu devais mourir demain mbokk yi ci maanaa boobu nee nañ yonent bi alayhi salaam nee naay yaamal amalam ri'in an laa yamuut abada mu ne na ngay jëf di liggéey comme nit koo xam ne bu ñu ko gisee ci farlu ak fulla ji muy liggéeyee dañuy ñan kii daal dafa yaakaar ni du dee àdduna mooy këram waxsar xidram ri'in yaxsha an yamutu an yamuta gadan waaye nag nangay ngay moytu di jaamu yàlla di ragal yàlla ba mu mel ni yow kat ku la gis danaan ngóor si day dafa foog ni deewa ngi nii tiim ke muy génn àdduna ci ndiir su gàtt boroom xam-xam yi shara bu daif bi ñu ne imal li dunyaaka ka annaka taishu abada na nga liggéeyal sa dund àdduna gi liggéeyal ci àdduna ba ku la gis foog ni yow kat doo dee mukk waamal li axiratika annaka tamuutu gadan waaye liggéeyalal sa àllaxira ba mu mel ni ci si topp ci nga war a génn àdduna bi ces pensées amis auditeurs rappellent seulement que la religion a pour rôle d'agir sur ce monde en exerçant un travail utile et licite certainement que mes paroles vont surprendre beaucoup de gens puisque la plupart d'entre nous pense que la religion doit seulement s'occuper de questions métaphysiques, de rail, de l'au-delà, que la religion n'a pas le droit de parler de ce monde, ni de s'occuper des affaires de ce monde, encore moins de la façon d'organiser le travail et les rapports dans le cadre de ce travail. Mbokk yi yii day fàttali rekk ni ngir diine liggéey bi war ci doomu aadama pas-pas war ka taxaw mooy mu liggéey ci àdduna bi liggéey bu dagan liggéey boo xam ne dana ko jural teraanga kàddu yi may wax nag ñu bare daañu ni kaw téef nopp dalooti na lii de kenn mësu ko dégg ndax lu tax ñuy wax loolu mooy ñun ni nu gisee diine mooy diine kat moom àllaaxira kese la war a wax lépp lu jëm ci àdduna bi yoonam nekku ci buñ ne yoonam nekku ci nag bon daa dégg ko ne waaw diine lan mooy yoonam ci liggéey ak naka la ñuy doxale liggéey luy yoonam ci diggante patron ak mbindaanam mais amis auditeurs c'est une erreur grave car l'importance que la religion accorde au travail se mesure à ce que tous les prophètes sans exception ont exercé un métier Zacharia était menuisier a dit le prophète Mohammed paix et salut sur tout comme Jésus, paix et salut sur lui, était charpentier. David et Salomon, alayhim étaient des forgerons ou si tu veux dire des menuisiers métalliques. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, le sceau des prophètes, la meilleure des créatures, était commerçant et nous a informés, nous disant que Dieu n'a envoyé aucun prophète sans que celui-ci et exerçait le métier de berger. Les, com les compagnons lui demandèrent, Même toi Il répondit, Oui, même moi. Je gardais les troupeaux des gens de Makka moyennant un salaire. déggal njuumte la nit ki yaakaar ni diine yoonam nekkul ci liggéey solo si diine am jox jox liggéey yaa ngi koy gisee ci ñi yàlla yónni yàlla mosul yónni benn yonent boo xam ne amuloo métier danga nga am métier ma la ci yonent yàlla Zakaria alayhi salaam ministre la woon yonent yàlla Isa alayhi salaam naka noonu yonent yàlla Daawuda yonent yàlla Suleymaan ay tëgg la ñu woon menuisier métallique la ñu woon yonent bi sallallahu alayhi wa ali nekkoon na commerçant yëgale ah ma baasa allahu nabiyan illa raa'il ghanam mu ne yàlla mosul yebal benn yonent lu dul yonent boobu liggéey na liggéeyu sàmm sàmm na ay jur fa qaala ashaabuhu wa ant saxaaba yi ne ko yow nag yow itam def nga loolu di qaala naam kuntu ara ala xaraarit li ahli makka mu ne leen man doon naa sàmm fii ci xuru makka yi ngir nit ñi di ma fay loolu ñu may fay ma ciy dunde c'est cette vision que l'islam se fait du travail qui a permis à cette religion sublime de mobiliser toutes les énergies pour sortir le monde de l'obscurantisme du Moyen Âge et l'engager dans l'ère de la modernité qui va lui offrir toutes sortes de conforts, ces conforts dont nous-mêmes en train de jouir gis-gis bi mooy gis-gisu lislaam ci liggéey gis-gis bi itam xiirtal nit ñi ci liggéey moo tax lislaam ca njaal benn mu mën a génne àdduna ci lëndëmu jaahiliya ga sóob ko ci développement ci modernité bii nga xam ni moom lañuy dund tey modernité boobu jàppandalal dundu doomu aadama jox ko ay koom jox ka ay jumtukaayu bànneex ak mbégte jumtukaay yooyu ñun ñu ngi ciy jëriñu tey bu ëllëgee ñeneen indi jumtukaay yu gën a raw yi nu fekke ñun ci sunu dund adduna demande-leur dit le verset 32 sourate Araf qui ose interdire le luxe et les bonnes nourritures que Dieu a créées pour ses adorateurs, dit, ce luxe et ces bonnes nourritures sont destinées aux croyants dans ce monde et leur seront exclusivement réservées le jour de la résurrection. C'est ainsi que nous expliquons nos enseignements à ceux qui peuvent savoir. Ok boo demee da ngay fekk Alquran tënkal la yi ca waxinam bu leer ba laaye fanweer ñaar suratul araaf mu ne qul laaj leen man xarama diinata allahi allati li ibaadihi wa tayibaati min ar risq ana kan mooy tere ñi gëm yàlla xéewal yi takkaay taar-taar yi luxe bi yàlla génnee ak lekk yu neex yi ak yu tey qul ni leen hiya lillazina amanu fi lxayaati dunia loola kat ci àdduna bi li taxoon yàlla defar yii def fi yu neex yi def fi yu rafet yi mooy pour ñi ko gëm waaye nag àdduna ñu bokk ko ak ñëpp boo lëgee xaalisatan yowmal qiyaamati ñoom rekk ñu koy jagoo bu bis ndax ñoom rekk ñooy dugg ci aljanna fekk fa lépp li seen bànneex di kadalika nufassilu l ayaati li qawmi yaalamu yàlla mu ne nii lay faram fàccee ay firnde di joxe ay firnde waaye ñi ci jariñu mooy nit ñi nga xam ni dinañu xam gannaaw bu ñu déggee suratul araf laaya fanweer ak ñaar ñu ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu wërsëgal nu nu bokk ci way dégg yi mën a topp boole ci ñiy bu ñu déggee kàddu topp la ci gën a rafet loola yomb na borom bi yàlla na ko defal Si maintenant nous levons les yeux et, le posons, les posons sur notre société et les troubles qui minent le monde du travail, nous saurons alors que nous nous sommes éloignés de l'enseignement de notre religion. Et cette rupture d'avec les principes islamiques du travail est aussi bien le fait des patrons, de l'État que des travailleurs. mbokk yi bu ñu yëkkatee suñu bët tekk nag ci li nuy dund tey gannaaw bi ñu la waxee misaal bu rëy bi lislaam jëme nit ñu gis say jaxasoo bi am ci biir bërëbu liggéeyukaay yi jaamarloo bi am diggante ñiy liggéey ak ñi leen di liggéeyloo liñ ciy jàngate rek mooy ni dañu bàyyi li nu suñu diine jàngaloon teggi yoon wi nga xam ni foofu lañu nu tegloo woon suñuy tànk jàdd booba nag dogoo ak euh, njàngaley lislaam yi ci wàllu liggéey dooni liggéeykat yi rek la déedéet ñépp la liggéeykat bi ka kay liggéeyloo xataa nguur gi nga xam ne moom mooy saytu lépp les grèves chroniques dans tous les secteurs de la vie active montrent que les employeurs, qu'ils soient privés ou de l'État, ne respectent pas les normes primaires qui apaisent les travailleurs et permettent de créer des conditions de production d'un rendement de qualité dans les milliers de travail. bu nu xoolee grève yi nga xam ne du dakk mukk ñu koy seet nag ci xeetu liggéey yépp la nga ciy jàngate mooy ñi nga xam ni ñooy liggéey loo day mu xam ñoom seen bërëbu liggéeyu kaayu seen bopp lañu am walla nguur lañ ñooña jàdd nañu seeni wareef ya ca gën a tuuti nga xam ne loolu moo waroon dalal liggéeykat bi ba tax li nga xam ne moom lay liggéey ñu ci mën a jële koom di ci jële meññiteef moo xam ni ku ko gis rek nga ni eske mais notre propos ne pas de faire la photographie de l'existant mais plutôt de donner des solutions aussi bien aux employeurs qu'aux employés si bien sûr vous nous le permettez. Aux employeurs, nous rappelons qu'ils doivent un, embaucher les travailleurs selon leurs compétences et non pas sur la base de népotisme. Quand le roi d'Égypte voulut nommer Joseph, alayhi salam, celui-ci lui dit, Fais-moi ministre de l'économie et des finances, car je suis un bon gestionnaire qui allie expérience et savoir. Verset 55, sourate Joseph. Et la fille de Chouaïb, conseilla son père au sujet de Moïse, paix et salut sur lui, et dit Père, engage cet homme à ton service. Tu ne saurais trouver un employé plus robuste et plus honnête que lui. mbokk mi suñu wàll nun du nekk di toppaat jaan di dóor ci watit bi waxtaan ci lin ñépp di dund gis ko teg ci seen bët waaye mooy alxal saafara si nan lañuy def ba génn ci lii bu ñu ko mayee nu dénk sunu bopp dénk ñépp ñi nga xam ne ñoom ñooy boroom bërëbu liggéeyukaay moo xam nguur lañ moo xam privé lañ ni leen li njëkk mooy bu ngeen dee jël liggéeykat dangeen ngeen koy jël ci man-manam da ngeen koy jël ci xam-xamam waaye du ngeen ko jël rek ci yaama neex ngay fàttali ni ba nga xamee ni buur ba ca Égypte woona yont yàlla yuusufa alayhi salaam ni bëgg naa la dénk responsabilité yont yàlla yuusufa daka dafa ni ko ijal ni ala xazaayinil ard def ma ministre des finances def ma ministre de l'économie dénk ma koom-koomu réew mi alal ji inni xafidun alim ndax man ku mën a sàmm laa ku mën a yaxantu laa te ku ci am xam-xam la suratu yuusufa laaye juróom fukk ak juróom noonu ngay fekkee doomu yont yàlla Shuayb ja ba mu gisee na yont yàlla Muusa alayhi salaam doxale mu ñëw mu ni baayam yow jëlal kii mu liggéeyal yaa abati mu ne ko yow bàyyi istajirhu jël ka mu liggéeyal la embauché ka inna xayra man istajart alqawiy al ndax ki gën ci koo xam ne kii moom nga war a jël mu lay liggéeyal mooy ku am kàttan koo xam ne kii nit ku wóor la suratul qasas lay ñaar fukk ak juróom benn amis auditeurs employeurs privé ou État. Si tu n'engages pas tes employés selon, comme l'a dit le Coran, leur aptitude, selon leur savoir, leur honnêteté et leur expérience, ton entreprise périclitera et ton pays régressera. mbokk mi moo xam xam privé yow miy saytu bërëbu liggéeyukaay su fekkente ni nit ñi doo leen jël ngir ñu liggéeyal la ci kaw seen kàttan ci kaw seen xam-xam ci kaw seen njub ak ci kaw seen xereñ nanga xam ni sa bërëbu liggéeyukaay day suux rekk nanga nga yëg ni sa réew day dellu gannaaw du dañ di dellu gannaaw ndax luy yóbbu réew kanam moom mooy liggéey ci liggéey bu jaar yoon Deuxièmement, aux employés, nous conseillons de ne pas surcharger leurs travailleurs, leurs employés de travaux durs, car le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit, assure à tes employés la nourriture et l'habillement et ne les charge pas de travaux au-delà de leurs force. mbokk mi di saytu sa bërëbu liggéeyukaay moo xam nguur nga moo xam privé nga ñuy dénk sunu bopp dina la dénk ni bul teg say liggéeyukaay say liggéeykat lu ñu àttanul lu jéggi seen kàttan yonent bi sallallahu alayhi wa ki gën ci ñi yàlla masa bind wax na mu ne lil mamluuki taamuhu wa kiswatuhu mu ni liggéeykat bi kat war nañu ko jox lekkam ak colkaam gàddul ka lekk ak colka wala yukallaf min al amal illa maa yutiq te kenn waru ko teg liggéey bu mu at amis auditeurs employeurs état ou privé vous devez assurer un salaire décent à vos employés un salaire qui leur permet de résoudre leurs besoins essentiels qui consistent à avoir un logement, à avoir un moyen de locomotion pour pouvoir fonder une famille. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, s'adressant à l'État, lui dit: Celui qui travaille pour nous et qui n'est pas marié qu'il se marie. S'il n'a pas de serviteur, qu'il en engage un. S'il n'a pas de maison, qu'il en prenne une. S'il n'a pas de voiture, qu'il en prenne une. Quiconque prend autre chose que cela est un détourneur, un voleur. mbokk mi rawatina mbokk mi di état ndax yonent bi alayhi bu waxee jëm ci boppam nguur lay wax war na nga jox sa liggéeykat pay goo xam ne gii pay gu koy may mu mën a dund dund bu normal mën a faj aajo yi nga xam ni képp kenn ci dund àdduna aajo yooyu da nga ko war a faj te mooy nga sañ ci kër nga am kër gooy dugal sa njaboot nga am jumtukaay boo xam ne boo bëggee doxi say soxla moom moo lay yóbbu nga dem ak a dikk moo xam welo la moo xam moto la moo xam oto la moo xam roppalaan wax na moom ki yàlla yónni mu ne man walla lana amalan falam yakun lahu zawjatun falyatazawwaj mu ne képp koo xam ne kii dénk nañu la sunu liggéey jox la responsabilité ci liggéey te amoo soxna nanga takk soxna bon nguur kenn du ko dénk célibataire aw xaadim falyattaxis xaadima bu amul booy bu koy liggéeyal nawut wut mbindaan aw maskan fal yattaxis maskanan su amul kër nañu ko jox kër aw daabatun fal yattaxis daabatan bu amul warwaay nañu ko jox warwaay fa man asaaba siwa dalika fa huwa xaalun aw saariq mu ne képp koo xam ne nag laal nga ci alal ji loo ëpp lii kooka day war na sàcc la détourné na alalu réew am yow di teel amis auditeurs, employeurs, État ou privé, il vous faut enfin assurer la régularité du salaire de vos employés et la ponctualité de ce salaire. Nul ne peut ni ne doit tolérer les retards de salaire ou les ruptures de salaire au moment où l'individu part à la retraite. Payez le travailleur avant que s'évapore sa sueur, a dit la meilleure des créatures, le prophète Muhammad, paix et salut sur mbokk mi yow mi nga xam ni yow yaay jël ku la liggéeyal na nga fexe ba payoram bu mu tardé bu mu tardé bu mu yéex itam bu ci dara wàññeeku. ndax nit warul mën a dégg waxtu payoor jot ñu ni payoor ga kenn gisul fu mu nekk wala waxtu dem retraite jot na nit ka liggéey na at yu dul jeex dem retraite am jot na ñu ne ko yow kat sa salaire gisatuñ ki yàlla yónni wax na mu ni utul ajira ajra qabla an yajiffa irqu mu ne na ngeen fay liggéeykat bi jox ko payooram bala ñaqam di fer bala muy sangu jox ko jox ko payooram ainsi amis auditeurs il apparaît vraiment que la meilleure voie la meilleure stratégie la meilleure politique que nous pouvions adopter dans le monde du travail est la voie la stratégie la politique du prophète Muhammad paix et salut su ñu dégg ci jàngale lislaam jàngale ka won nanu ni ca dëgg-dëgg xayral hadi bi gën ci doxalin ci wàllu liggéey bi gën ci politik ci wàllu liggéey bi gën ci tëralin ci wàllu liggéey bi gën ci jëflante ci wàllu liggéey hadyu muhammadin sallallahu alayhi wa ali mooy bu yonent bi sallallahu alayhi wa ali nu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu wërsëgal nu nu bokk ci way dégg yi mën a topp nooyal sunu xol ñun ñu yor suñu bërëbu liggéeyukaay ba nu mën a wàccoonteeg lii nu yàlla di taxawal ëllëg dinu ko laaj boole nu ci ñiy dégg di mën a topp loola yomb na borom bi yàlla na nu ko defal Chers amis auditeurs qui nous accompagnait en ce jour béni où l'on est censé célébrer le travail et le travailleur. Nos orientations à l'égard de nos frères travailleurs, c'est de leur dire, premièrement, que tout travailleur doit faire son travail, accomplir sa tâche, la tâche que son employeur lui a confiée du mieux qu'il peut. Car le messager d'Allah, la meilleure des créatures, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous dit que Dieu subhanahu a recommandé la perfection en toutes choses. mbokk yi yéen ñu tedd ñi ànd ak nun ci bis bu tedd bi ñu yaakaar ni sargal liggéey ak liggéeykat la ñu wax ak sunu mbokk liggéeykat yi gannaaw bu ñu fàttalee ñiy liggéeylu ni képp kenn koo xam ni dénk nañu la liggéey nga nangu liggéey booba war na ci yow nga def sa kem kattan pour liggéey ba nga def ko ci na mu gën a rafete ci ni nga gën a mane wax yonent bi sallallahu alayhi wax na mu ne inna allaha kataba al ihsan ala kulli shay mu ne yàlla santaane na rafetal ci bépp mbir boo toppee xaddis bi dana ni même boo dee rey sax na rafet Chers amis auditeurs, travailleurs, il est interdit de tricher au travail, c'est-à-dire de faire semblant de travailler alors qu'en réalité, on ne fait rien. Car, dit la meilleure des créatures, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, celui qui nous trompe ne fait pas partie de nous. sachez que le fourbe et le trompeur iront en enfer mbokk yi mbokku liggéeykat euh, ñu bàyyi xel ni yeyul ci képp kenn kuy liggéey mooy wor ci biir liggéeyam muy naxe ci biir liggéeyam mu mel ni mu ngi liggéey fekk deful dara ndax yonent bi sallallahu alayhi wa ali wax na mu ni man ghashana fa laysa minna koo xam ni kii dafa nuy nax di di labaj ci suñuy mbir mu ne kooku bokkal ci ñun wal makr wal xidaa fi naar te képp koo xam ni kii da ngay wor di naxi kooka safara nga jëm amis auditeurs employés sachez que notre rôle en tant qu'employé c'est de collaborer avec notre employeur dans tout ce qui fait avancer le service dans l'intérêt général du service et du pays dans lequel nous sommes. Le Coran dit, entraidez-vous dans les bonnes actions et la piété. Ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Sourate La Table, verset 2. Mbokk mi mbokku liggéeykat bi ñu fàttali sunu bopp fàttali ni war na ci képp kuy liggéey mu ànd jàppalante loxo ak ki ka sas liggéey ngir ñu taxaw ànd di xalaat ci lépp loo xam ne mooy jëmale seen liggéey ak seen bërëbu liggéeyukaay kanam te bu ñu ko waxee nga ne mooy jëmale réew ma kanam alquran wax na ko mu ne wa taawanu alal bir wa taqwa mu ne na ngeen di jàppalante ci mbaax ak ragal yàlla wala taawanu alal ismi wal udwaan bu leen jàppalante mukk ci moy def lu bon ak noonoo ak yàq suratul maïda ñaareelu laay bi enfin amis auditeurs employés travailleurs sachant que tout employé doit considérer son outil de travail, c'est-à-dire son lieu de travail, ses instruments de travail comme un bien appartenant à Dieu subhanahu wa ta'ala qui a mis ses moyens à notre disposition, à la disposition de la société, pour que nous améliorions notre vie et la vie collective que nous créions le bonheur, mais le bonheur pour nous et pour tout notre environnement. Le Coran dit, verset 13, sourate Al-Jathia, c'est Dieu qui vous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et sur terre, lui seul. Il y a en cela des signes pour ceux qui réfléchissent. mbokk yi sunu mbokk ñu fàttali sunu bopp fàttali la ni képp kuy liggéey ak ci bërëb bu mu mënti doon te na góor góorgóorlu ba mu nekk lu dagan rekk war na jàppali jumtukaayu liggéey bi te mooy bërëbu liggéeyukaay bi mooy machine yi fi nekk mooy lépp li nga xam ni moom lay jëfandikoo ngir liggéey loola ki ko sas liggéey moomu ko yàlla subhaanahu wa taala moo ko moom moonu ko jox ngir ñu fexe ba sunu dund ci askan bi nekk dund gu tedd yàlla moo moonu jox jumtukaayu liggéey yooyu jaarale ko ci kenn ci nun ngir nu fexe ba ñépp nekk ci dund gu naat dund gu tedd ngir li liggéey di jur wax na mu ni wa saxara lakum ma fi samawati wa ma fi l ardi jamian mu ne yàlla moom moo leen tàggatal moo leen jox lépp lépp li ci asamaan ak lépp li ci suuf mboole seen lomanti xool ci moom yàlla moom moo ko joxe moom moo ko moom inna fi dalika la ayatin li qawmi yatafakkaru ngelawaay képp koo xam ni seetlu na lii dana ci fekk ay firnde li fekk moom bokk na ci nit ñi xalaat suratu jaasiya laaye fukk ak ñett ñu ñaan yàlla subhanahu wa mu wërsëgal nu boole ñu ci way dégg yi mën a topp loola yomb na borom bi yal na nu ko defal anta ya mahmud min suyufillah Très chers amis auditeurs, employés, employeurs privés ou État, sachons que si ces orientations étaient suivies pour l'amour de Dieu subhanahu wa ta'ala, nous ne verrions pas toute cette confrontation, tout ce combat à mort auquel nous assistons entre employeurs et employés. Si ces enseignements étaient appliqués, la fête du travail serait une véritable fête où les employeurs et les employés ne feraient que se réjouir et réfléchir ensemble aux moyens de produire davantage de valeur, aux moyens de créer davantage de bonheur dans ce qui les environne. mbokk yi mbokk yi liggéey mbokk yi liggéeylu moo xam nguur nga moo xam privé ci yëkkati sunu jataayu tey dañuy fàttali nu su fekkonte ni njàngale yii yàlla subhaanahu wa taala jàngale toppoon nañu ko topp ka li wajhillaahi dong bon duñu gis jaamarloo bi gis xiiroog bi nga xam ni moo dox diggante ñiy liggéeylu ak ñi leen di liggéey su fekkoon jàngale yi doxale nañu ko ci sunu dund bis bu nekk feetu liggéey gi day nekk feet ca dëgg ndax bu boobaa daa gis liggéeykat ak kaka liggéey ñu ànd ànd di bég di ree di kaf di fo di ree waaye ñu ànd di xalaat fête di travail war a nekk occasion boo xam ne ku ci nekk danga war a toog ñuy xalaat déwén ji ñu jëm lan la ñu war a def ba koom gi gën a bare nan la ñu war a def ba dund gi gën a naat te loola muy nekk ci sababu li nuy liggéey mu nekk sunu wàll ci àdduna bi jëm kanam amis auditeurs employeur employé état ou privé si ces enseignements régissaient véritablement les rapports dans le monde du travail La fête du travail ne serait jamais un moment de revendication, un moment de confrontation, un moment de recensement des rancœurs, un moment de déclaration de guerre et de menaces mutuelles à peine voilées. Ce triste tableau que je te peins est résumé par la formule consacrée qui dit, nous allons remettre les cahiers de doléances. remise de cahier de doléances, ça veut dire toute notre rancœur est dans ce cahier. Toute notre colère est dans ce cahier. Toute notre peine est dans ce cahier. Donc, plutôt que faire du travail, c'est la douleur du travail dans le monde qui a tourné le dos à Dieu subhanahu moo xam nguur nga moo xam privé bu fekkoon jàngale yi yàlla jàngale moom moo doon doxal jëflante bi ci bërëbu liggéeyukaay yi bon li ñu naan feetu liggéey muy fête du travail du nekk mukk benn jamono boo xam ni bi kenn ku nekk yaa ngi ñaxtu jamono boo xam ni kenn ku ci nekk yaa ngi jàmbat kenn ku ci nekk yaa ngi feeñal sa metit ak sa naqar kenn ku ci nekk yaa ngi tëkku sa moroom lii ma la wax du lu ñuy wax nun rekk waaye lu ñu gis la ci kàddu gi ñu naan joxe sunu carnet jàmbat joxe carnet jàmbat cahier de doléance waa bu fekkee jàmbat la kay bon foofu feet amu fa bon dañu waroon wax bis bi mooy bisu naqaru liggéey naqaru liggéey ngir mu nekk fête de travail faw ñu dellu ci li nga xam ne moom la lislaam jàngale topp ka jëfe ka zahiran wa batinan lu mooy lii duñu dañ di déng-déng ci biir jàmbat ci biir tolof-tolof ci àdduna boo xam ne day dellu gannaaw ñu ñaan yàlla subhaanahu wa mu wërsëgal nu nu bokk ci way dégg yi mën a topp loola yomb nag yàlla na ko شأنك الإنعام أنت بعد الله يا رسول الله di leen jox ndaje ci kàttanu borom bi subhaanahu wa taala ci ayu bis yi nu dëgmal ñu nekkoon fii ci rajo senegal international àndoon ak sunuy mbokk Mouammar Khadafi Jaxate Mouhammad Chérif Diop